mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafetloo sa waxtaan dafa gis jamono ji ñu bëree bëri di jàmbat ba ñuy metti te xamuñu luy sabab bi muy laaj loolu luy sababam maanaam ba ñuy metti bari lool yomb lool ak loo yaakaar ni dina ko saafara moom dina ma tax ma dab dabaatal lu ma fàtte woon sax naam ñun ni ñuy dundee moo baaxul mu ñuy lekk baaxul añ ba noppi reer ba noppi ndékke ba noppi naan ndox mu sedd màggataale bëñ lu jafe la kaas bu tàng boo ci sottee lu sedd mu toj bi ci des xooj pour ginaar la ak kanaara <laughs> ndaxte dafa am lu ci ne sooy togg ñam lépp luy impureté day wàcc ci suuf booy xooñ nga yóbbaale ko bi ci des li ëpp ci cin yi ay moteur yoo xam ne oto bu daan utiliser essence bu am plomb moo ci ne day nekkaat ci xooñ bi ci ci ci aluminium bi sooy xooñ nga yóbbaale aluminium bi jafe na kuy dunde xooñ mu màggataale bëñ wala mu fàtte opéré wuñ ko appendice. gars yi kon xooñ a ngi noonu dee leen ko bàyyi xel xooñ kat nee na nañ koy wattandiku bu baax baax a baax kii daf doon laaj ñi boole kafe ak meew. ndax loolu amul benn njëriñ ci amul lu muy wàññi ba noppi itam lu mel ni soble nga jox ko ci ay njariñ dañuy tàmbalee soble loolu moo doon mujjul programme bi soble daanaka jafe na nga gis lu ko gën te nit di ko jëfandikoo day tax day rey ay parasites maanaam ay ay ay ay ay ay ay saan ak lu ni mel ak yeneen i jàkkatal ah lu muy jariñ nit nga soj di nga xeeñtu rek mën na wëral soj beeg lu ni mel ah waaw. kafe ak meew nit ñi dañ ko faral di def mais tubaab bi dañ naan c'est indigeste maanaam boo ko naanee doo ko digérer soit da ngay naan café wala nga naan sa meew mais boole leen mën na laa bañ a wàññi dara mais doo ko jariñoo jërëjëf kii muy laaj ndax xeeti bouillon yooyu ngay wax te nga waxtaan ci waxtaan wu yaatoo yaatu mu ne ndax day wàññi kàttan maanaam day wàññi ngóor ah dama koy jaajëfal xam nga waxtu wi xat bi moo ma moo tax moo ma faay ba loolu lépp ma fàtte ko. mais nee nañ ci ay gëstu leer na nañ que boo demoon tey Mauritanie saawoo gi nga am ci xar moo xam ne bëggoo mu am doom ci saawoo gi nga xooj ko jox ko ko doot dootu ci am doom kon day wàññi ngóor bi ci des leer na nañ ne euh, soo koy jëfandikoo am na jeexleel muy def sa yaram yoo xam ne euh, dina mën a tax ba ndax li may nit yaram ci anam yu yenn wu maanaa rek mën na gàllankoor ci ci wàllu sëy ak lu ni mel mais nag loolu firnde gu leer nañ la jox nañ ko ay mala. gis jeexital bi mu am ci ñom ci seen walu ngóor donc loolu lu leer nañ la sàmm yu bari wax nañ ni buñ bëgge tap seenu jur ñent wala juróom rek lañ ci boole wëgge ko ko mu daal di tàpp loolu mom sàmm yi wax nañ ko lu bare bare xawma nak ñun ñi dëkk ci diko lek waxtu jot day laaj mu di xet diwlin yi ni lek yu bare bare yoy tam ban jeexital lay def ci nit c'est que diwlin dafa graw gis nga ni ñi demone ci mbëkk mi sénégalais bi leen jappé dañ leen jël une semaine ñu defaleen jet manam ak koor koor go xamne ne li ñuy lek du am diwlin du am sucre du am xorom ndax ñom japp nañ ni ñun même bu baaxoon sax ci anam ñu koy jëfëndiko baxul Rusi russi baxul day joxe cancer russi te soxna ñeppay russi pour nga dindi leen sax coono bu reey la wante nak xet diwlin yi ñëw fii Sénégal ñun uwal la ci ñun xamuñu diwlinu lan la ndax diwlin gi gën ñu koy senegal mu diwlinu gerte gi nga xamne ba ca gën daanaka dañ koy importe ñun yu nu kooj moo fi des ak diwlin yoo xam ne ay graisse su bale nag lu ne ay façon gàncax bu ne mooy ñëw ci réew mi te loolu li sëñ bi waxoon léegi rek dafa laaj ñoom ay jumtukaay yoo xam ne lu fi te ñu saytu gu mbaxam xam lii lan la ak fu mu cosaanu jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ni gura ak pitikola ndax baax na ci wér-gu-yaram ba noppi xeeti sunguf meew yi mu ne ndax am na lu muy jeexital ci yaramu doomu aadama wala déet sunguf meew yëpp duñu ñu meew am ci yo xam ay leew soja lak lu ne amne yo yoo ay garap lañ jël defar ko du meew donc du sunguf meew bu nit ñi gis rek meew la donc eske la ngi nonu est-ce que su dé meew rek baxna mais est-ce que meew la bi ci dess de xaw mais petit cola mom mom mom lu bax ci nit la wante dafa mut mu ci ne dañ nan boy lek petit cola bu ko dag di ko xaajte nga dag def sa pos men ma cey genn baxul dañ ne nga lek ko ben yon mu jeex amna ñu komset ne sax ras koom set lekkale mbarma sax mo geut waxuma na nga diko xaj donc kenn duko xaj mais dafa bax ci lepp lu jëm ci ay feebaru bir way ku koy lek dom bi ngay lek non rek do ko xajal kon lolu ñu deg ko bax kuy lek ci cola amul xaajale da ngay lek dom bi non rek da fay laaj ba xam euh, mu ni damay laaj naka lan mëna a def ba mucc ci lek yoy nga xamanteni ni ko doon wax ni légui nun mëna def ba mucc ci ah mucc ci mom njaxan xanaa nuñ def wàññi ko fa ngay tàmbalee nga ne sama kër kenn dootu fi jëfandikoo saf-safal dootuma jënd boisson bi sap lay jëfandikoo def ci nana def ci citron wala buy wala junjeer wala ditax wala lu ni mel manam da ngay wañi moy tundiku di lek ci lek euh, mbolo yi tant que mbolo makay saytu tagatuñ len ñun de ci mboro weer wala ci ginaaw def nañ ben bisu xasida juróom ñetti mën a yéen tegoon benn bu ñoo teg dugg ci te ña fa jëfandikoo ñëpp kenn waxul ne naqari na donc fexe ba mbooloo yi tamit ñu xiirtal leen ci ñuy togg lu sell di joxe naan gu sell tamit da ciy daldi am solo. ki day laaj mu ni soble lan lay jotee biir buy daw ndax nee na dafa am koo xam ne moom day def saa bu lekkee soble rek mu daw biiram muy laaj loo ko doon digal ak li nga wax ci soble ci baax. Euh, soble baaxawul daw biir. wante nit ku ne amna na ñam woo xamne yaramam da ko nangul amna na xamne xam ne duñ jëfandikoo ndawal mais soble deug deug soble dafa bax ci nit surtout nga jël soble bu ndaw nga dag ko lekk noonu jeextal bu am soble def sa sa yaram wante daw gi mi daw biram man xomul tax mais baaxoowul di daw bir normalement ki day laaj mu ni sucre si lu tax docteur yi di bindal nit ñi te baaxut te xamni ni euh docteur yi ñi ñak pexé lañ koy bindal amul ku dara jotul nga dem docteur di lu ko bindal amul nit ñi ñooy dem di ko bindal seen bopp di ko jëndal seen bopp ki nga xam ne docteur mënu ko tere suukar te bu jëfandikoo bii mu lor ko lor gu gaaw mu ne comme bii moo fi sës naa ko ko jox ñoom ci loolu lañ nekk mais euh, nit ñi ñooy dem di ko jëfandikoo seen bopp automédicamentation. mbokk mi nee na moom daal su la doon déglu nga di ko diggal yan xeeti ñam nga koy diggal muy sàmmoonteeg moom te di ko lekk ah. ci ci laaj bi la gëna kontaan manam ni mam daan dundé cere laax fonde mais ciép ñu def mbaxal te bayyi ciép bu wessal di nan sa yu ndox nekké sam xel ñun dañuy dem ba mar do wonam mi ngi melni ku dawal sa auto ba radiateur bi tang loolu lay tolloo sa yu ndox sam xel démé ci ndox rek da nga wara nan li so gisé Sénégal op ñaar la duñu nan dañuy jëfandikoo loo xam ne dañuy jural seere suñu feebar yëpp ci loolu la cosaanu donc daal na jëfandikoo li maam daan jëfandikoo moytu produit chimique mbokk mi nee na bouillon yi nga fi wane léegi te ndëkk ci di ko lekk moom yan xeeti jafe-jafe ak yan xeeti wéradi la mën a jeexital ci yaramu doomu aadama ah, wax naa ko léegi ay cancer ay feebar ci wàllu néegu sëy ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais li gën a siiw moy problème maladie cardiovasculaire manam ay AVC ay xol ay fièvre sidit ay fièvre tension ndax xorom si si nek même bu dekkuloon posom sax li ci nek ci xorom dafa ëpp waaw mbokk mi muni ni si nga doon wax ndax man nga ko ko ràññat lel ba mu xamé ko ba man ko koo ko bu baakha a baax ba xam ban xet suukar ah xana wax ko tur bi rek bu demee gis ñu bind aspartame 951 wala yu ni mu xam ne moo ci nekk ah NutraSweet tour yi rek ci ndax moog suukar ñoo nuroo waaye du sax suukar moom xorom la mais dafa nuróog suukar donc ràññal la ko moom jafe na loolu wante nag jàppal bépp jus wala xeetu naan boo naan mu bàyyi caf ko sa làmmiñ rek xamal ne moo ca nekk. jërëjëf mbokk mi itam mu ne dafay laaj mu ni sëriñ bi comme xeeti ñam yi nga wax maanaam xaj na. lépp mënee su leen a wattandiku bu baax a baax léegi nag mu ni loo koy digal ngir xañ na bu juumee ba jëfandikoo ko nu muy mën a def ba maanaam nan lay mën a jëfandikoo waat ba xaj na bu ca waroon na mën a am ay loraange yu bari yàlla dina ko ca mën a dimbali. ah loolu dina dina yéeme loolu ndax biir moom kaso la moom kay li mu ko digal mooy fexe ba ba bañ ko jëfandikoo rek waaw bu ko jëfandikoo mu moytu ko ëllëg ndax tamit nu ñu suñu borom sàkkee mën nga jëfandikoo loo xam ne benn ñaar ñett mën na la bañ a wàññi dara lu bon mooy nga dëkk ca sax sa maanaam nen sax nen. bis bu set nga lek nen boko lek nga fat nen sax mono bis bu set nga lek ci ben nen yap sax bis bu set nga lek yap do gudu fan ndax sa yaram bi fay acide sa deret da fay acide donc nga xamne dekk ci mbir sax mom mo waxuma nak poson mbok mi mu xorom bi nga don wax la bëggoon dal ñu man ko ko leeral bam xamé ko ci xeeti xorom yi nan lay koy mëna xamé xàmmee xorom yi euh, danaka Sénégal dugul ci ci anamu xorom da fi dugul ci anamu saf-safal na donc na moytandiku saf-safal yépp lépp luy xeetu saf-safal na ko moytandiku waaw. kon daal xeeti saf-safal yi moytu ko moo gën mu ni comme gis na ni wéradi yi bari na te wéradi yi jàpp na ni itam ñuy wax ak xeet yooyu moom mu koy indi mu doon laaj nga labiré ko nan la mën a nit def ci jamono ji ba mën a mucc ci yooyu wan yoon la war a mën a aw rek ba mën cee mucc. su dee borom kër la de. moo ci tane waaye bu dee suur surga dina jafe lool ci moom borom kër mën nga ne sama kër lii ak lii du fi am man lii ak lii laay jëfandikoo waaye bu dee ga moom dina jafe lool ci moom xanaa liñ fi lim lépp rek mu moytandiku ko loolu rek lañ ko mën a jox ko parce que mbir mi dafa metti nag jafe lool dafa jafe moytandiku kii mu ni dafa dégg ni lu baree bari buñ ko liggéeyee ci garab buñ koy essayé dañ koy essayé ci lu mel ni jinax walla kaña wala golo muy laaj ba xam ndax kaña ak jinax ak golo dañoo bokk nit ay organe ba tax lu ñuy bëgg jox nit ñu essayé ko ci ñoom wala nu mu demee noonu déedéet daanaka am na lu ñu bokk ñoom ñëpp ay mammifère lañ mais bokk ñu nit ay organe Dadi di nit kenn mënul di def ci moom ay expérience te daa gën a jàppandal jur gi gaaw mu neex a manipuler loolu rek a tax ndax nit doo ko jël naan da nga def am na nag ñu ko daan def buñ génnee benn garab dañ koy essayé seen bopp scientifique yu bëri loolu moo leen faat waaye kenn du ko def ci tey ji bakkan loolu tax ñu leen di jëfandikoo ki day laaj ba tey sukkar soosu daa mel ni loolu itam tontu woon nga ko ndax nee na sukkar soosu lay laaj nu ñuy def ak ndax sukkar soosu dafa doon lu yomb yomb tasaaroo ci marché bi wala maanaam tasaaroowut ci marché bi ba su sukkar soo foo foo foo tourné rek war ko mën euh, ca gannaaw tasaaroon na lool ba gars yi commencé wax ñu koy nëbb mais am na ci marché bi dañ ko doon def ay mbuus yu ndaw di ko jaay tudde ko suukaru chinois mais amoon na ci dëkk bi léegi nag ñu ngi koy nëbb waaye mi ngi ci dëkk bi. mbokk mi itam day laaj ci xeeti naan yi ñuy naan mooy sachet yu sew yooyu nga xamante ni day tuuti lool te boo ko teppee boo ko defee ci ndox dana mën a suukar lu man ñaari litre yi ndox muy laaj yooyu naan ko ndax amul jeexital yu muy def ci yaramu doomu aadama wala déet. mais wax naa ko léegi ay poson la ay poson la suukar si si nekk xorom la du suukar ay colorant lañ ci yokk donc dara lu naturel nekku ci donc boo ci dëkkee faw mu am jeexital sa yaram wax naa ko léegi. donc mooy mooy euh, boisson yi nga xam ne poudre la benn baaxu ci yëpp a yem ay produit chimiques la ci laboratoire bi lañ dugg jaxase lii ak lii ak lii def ci ndox mu daal di am caf ko ñu ne lii nañ koy jaay. kii mu ne day laaj est-ce que ginaar yi ñuy yar ci poulailler yi di leen jox ay produit yi nga xam ne màgg gi day gaaw lool ñu rëy lool mu ne ginaar yooyu itam ndax lekk koy du indi ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram. moom tamit naka noonu. d'abord yan anam lañu war a lekk ginaar ginaar dañ ko war a fees benn la gën a bon ci ginaar ma nga ca tànk ya te ñun moom lañ gën a bëgg cuisse ñaar ñetteel ginaar yi liñ leen di dundalee lu ñu leen di dundalee ndawal maanaam keccax lum jur moo di xeetu jàngoor yi daan ginaar te du dal nit léegi day dal nit dañ ci nen ci frigo sax fi ñu toll ni wóoratul ndax doomu jàngoro da ciy balle dugg ci yeneen ñam yi nga lekk ko am tolof tolof ba si des dañ leen di jox ay hormones pour ñu gaaw a màgg di leen jox ay antibiotique pour faj leen te nee nañ nit buy jëfandikoo antibiotique lu bëri day defar yeneen xeetu doomu jàngaro yoo xam ne moom ci boppam bu ko dalee tolof tolof yi bi am dafay dafay yéeme donc su mënee mañ a ñàkk koo utiliser moo gën jàpp ci ginaaru maam yàlla yi mais ginaaru xott yi moom tolof tolof rek lay jural nit ñi kooku moom lu leer naññ na. sëriñ bi wax na ni ku ko mënta bañ a kii nga fees ko maanaam bañ a lekk der bi boobaa boo ko togg nga fees ko dana ci xaw a tane aslëf waaw te muusal ko tuuti balaa ngay kii tur ndox mi doog ko commencé tur ndox mi soog koo soog koo kon loolu mbokk yi dégg ko baax a baax kii nee na euh, ñi xeeti maanaam ñam am jabet bu fekkee dañoo bëgg moytu suukar yooyu ñoom loo di digal ak wan yoon la ñu war a mën a kii ah su boba nak ñom dañuy xex ak bakkan ndaxte lu saf suukar la ndax moytandiku ñom mënu ñu dut ñu sukkar yi ndax ndaxte seen yaram daf ci am lo xam day tax sukkar ci day bëri seen yaram donc ñom dañ leena defal sukkar so xam bu duggé ci yaram dootul nek sukkar bien que day doxé day joxe ñom Nyom ñu pexé xana ñu ñu jëma jëma ki at seen bakkan rek moytandiku ñam yi nga xam dafa am sukkar lool rek la leen mën ak def seen régime bu normal mbokk bi day laaj ba xam mu ne dama doon laaj euh, xeeti jeu yi ñuy wax ak xeeti jus yi nga doon wax mu ne suñ ko naanee maanaam ñi koy naan ak di def sport maanaam lu mu leen di jural ñi def sport di naan xeeti jeu yi ngay wax noonu lu leen di jural. mais li jural ñëpp la leen di jural rek ñoom it ay doomu aadama la du sport bi moo leen ci aar déedéet du du leen ci aar ay tolof tolof yi muy jural ñeneen ni moom la leen di jural donc nañ ko rek. te sax mbir mi neexul ca dëgg-dëgg neexul boo defoon sa bisaab nga def ci naanaa mant suukar gu mu saf moo ko gën a neex. kii tam daa mel ni loolu la doon laaj mu ni mburu yi nga xamante ne dañ koy liggéey nga xam ne dañ ciy jaxase meew ak xaw ma nuñ koy waxee am na xeeti mburu yuñ koy tuddee yoo xam ni. xaw ma peewo lee lañ koy tudde xaw ma danañ ci jaxase ay mburu lay dana meew dina am ay yu bari luñ ciy jaxase mu yooyu lekk ko mbaa itam jeexital bu muy def ci doomu aadama wala xam nga fi ne nga naan déedéet sax day daal di nekk risque sëñ Babacar wax na ko léegi ndax gàncax gañ jëf jëfandikoo sax OGM la maanaam dañu jël suñu borom la mu defoon ñu soppar ñi ko fexe ba defar gàncax goo xam ne day gaaw a màgg day gaaw a lii day gaaw lii day gaaw a lii te loolu nee nañ fii ak ñeent fukki at fii ñaar fukki at ban jeexite lay am suñu yaram nga xamne jëmmi fariñ bi ci bopam rek xamaguñ lan lay def ci nit ñi fiñ ñu toll nii wante nak ñom lañuy def ay pain lé ci jëmmi jëmmi pain wolé rek ta indi tolof tolof mais produit bañ jëfëndiko rek ban jeexital la nara am ci suñu yaram fi ak ay ñaar fukki at ak ay fukki at ndax je OGM yeen utiliser ak lu ni mel. mbokk mi gannaaw bi nga seetaane vidéo ba pare ñu lay ñaan nga bëss fi ñu bind jëm bu fekkee gënd ci chaîne bi nak bëssal fi ñu bind s'abonné après nga activer cloche bi ni mën nga tamit